na boo xamee làmb nag bett ma woon xam naa ne Tapha nii lay bëree te ba ma booy ñaa tam na bëree nii xamoon naa ni combat mën na mujjee fi ci sama yaakaar. mais yaakaar woon ni wëlbit gang dina ci am. boos mënoon na nekk mais mi ngi doon dépendre ci ñoom ñaar ni ñu abordé combat bi rek quoi Tapha nii mooy mëninam booy booy ñaa xëy na lii bokk na ci ay ay da nga fi ñëw tey en tant que agent wu Balla Gaye numéro 2 kilifa Balla Gaye 2 wala da nga fi ñëw en tant que jarbaatu Gaston. ñaar yooyu mënuñu tàqalikoo Gaston sama tonton la Balla Gaye sama mbër la ñaar yooyu duñu tàqalikoo. maanaam ñoom ñaar ñëpp ñoo la fi andi daal. ah. ñoom ñaar ñëpp ñoo la fi andi. waaw ñoom ñaar ñoom ñoo ma waaw en même temps ñuy defaale lancement wu tam war nga wax bu bees bi. man kay damaa bëgg a dem laaj ko moom moom Modou Lo temps yi lan lañ seq parce que ñaar temps yi ñu ngi dugg di génn rek Warga Zador Aziz Ndiaye lan mooy sa objectif ci Warga Zador. non sama objectif mooy Marc Jador. Marc Jador waaw. Marc bëgg mu nekk une marque africaine uh-huh. marque boo xam ne d'abord sénégalaise ba pare nekk une marque africaine uh-huh. c'est une marque boo xam ne tey Sénégal ñoo ko bokk ñoo ko moom man moomatuma ko. li ma ci amoon mooy créer ko def naa ko léegi sénégalais yi ñoo ko moomal seen bopp te gëm naa ne ñoom ñëpp ñu ngi koy supporter ñu ngi koy jënd ñu ngi koy consommer kon c'est la marque des sénégalais kon vraiment maa ngi ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy utiliser yàlla defal leen tawfeex. lan moo la inspiré boole Balla Gaye ak Modou Lo ñu publicité warga bi mu nekkoon loo xamante ne tey sénégalais yi xaaruñu ko woon moment bii yàlla dimbali nga réussir loolu noonu boole ñu añandoo yendu publicité warga boobu noonu lan moo la may loolu facilité bi waaw xam nga aujourd'hui ñëpp xam nañ ne warga day boole maanaam autour d'une table ñëpp toog di naan ataaye te suñu nee warga xool Balla Gaye xool Modou Lo ñu xam ni ñaari nit lañ yoo xam ne ci sport ci làmb dañ ko marqué te ñëpp gis seen diggante ni mu amee ñagas-ñagas ñu indi warga yi pour mu boole leen ñoom ñaar ñu nekk benn wane ni sport day boole te du tàqale te warga Jador aussi day boole te du tàqale. Ah, ah. côté Modou Lo ndax yomboon na am ko. non Modou Lo man suma xarit la gis nga man nit ñi dañu xamul ni mbëru làmb yëpp sumay xarit lañ te yaa ngi ñëw ma toog ak ak Gris ci benn table te mu nekk adversaire bu Balla man làmb fi ma ci toll tey amatuma ci aw ma ci ennemi ñëpp sumay xarit lañ muy tafaatin mi doon bërëg booy ñaa muy booy ñaa mi doon bërëg tafaatin man ñëpp sumay xarit lañ Siteu day ñëw suma kër Ama Baldé ñoom ñëpp c'est la famille man aujourd'hui làmb fédérateur laaj kuy boole nit ñi kuy boole mbër yi ñu am xaalis am koom-koom yóbbu seen kër loolu moo ma gën a intéressé n'empêche que am naa sama produit muy Balla Gaye di sama rakk di sama frère dénk ma boppam ay intérêt am su ma ko yemal ak intérêt kenn mais nag relation yi ma am ak ñëpp dama koy sauvegarder muy relation yu baax yu bien ay Bombardier ay Tyson ñëpp sumay nit lañ donc man tey rôle bi may joué ci làmb mooy fédérateur boole ñëpp gis bu làmb amee problème ma taxaw dugal ci suma alal ngir jeunesse bi épanouir continuer di vivre seen làmb bi ñu bëgg loolu rek mooy suma rôle aujourd'hui yaa ko wax sànq nga ni intérêt Balla doo ko yemale ak intérêt kenn ñu gis ne am na kàddu yoo xamante ne yëkkati woon nga ko ni Boy Niang su fekkee dafa perte combat am logique làmb moo ko gën a xam te Boy Niang tey ñu ngi koy encouragé ci li ko dal di féliciter Tapha mais man Balla Gaye dama ci am baat am ñeneen ñu ci am baat am ñeneen ñu ci am cër ci gàttal néew ñu du ñu bëri ak booy ñaa mais pour ñu bëri ak moom il faut mu dem defaat leneen par exemple amaat yeneen combat amaat yeneen ndam logique gu làmb ak dox dox doxu làmb moo nanguwul tey booy ñaa tenté deux fois digganteem ak Lac de jàllul digganteem ak Tapha jàllul muy deux défaites d'affilée mu war a ñëw bëri un Balla bi nga xam ni c'est un ancien roi des arènes tegale ay victoire daan Gris Bordeaux daan Modou Lo war a bëreeg Bombardier fas yéene ko daan incha allah bu fa jugee nga bëgg ko boole ak Boy Niang lamb moo ko dul nangu nekkatul man maa koy bañ sax mais lamb nangootu ko ay supporteru Balla Gaye nangootuñ ko moom mbër mi ci boppam maa posé la question te wax dëgg yàlla neewuñu duñu bëreeg Boy Niang de mais bala ñuy bëreeg moom dinañ bëreeg Eumeu Sène ba pare bëreeg Gris Bordeaux ba pare fekk moom mu def yeneen preuve ñu dajewuwaat loolu bañaluñ ko ko bañuñu bëre ak moom mais pour ñu bërewaat ak moom il faut mu defaat yeneen preuve munoo am deux défaites tëb bëgg a bëre ak lamb moo koy bañ lamb nangu ko neewuñu duñu bëre ak moom parce que am nañ contrat bu ñu lii ak promoteur bi mais aussi pour ñu bëre moom foog ñu bëre ak Eumeu Sène ba pare bëre ak ba pare fekk moom mu def yeneen preuve am après ñu daje ci kaw incha allah. non contrat bi combat moo ci nekk. combat moom bañuñu ko. mais date bi ñu war a bëreeg moom ak période bi moom loolu définir guñ ko comme ñun quatre combats la ñu am dañuy eggale yeneen combats yi ba pare doo ko ñëwaat ci moom moom mu wëriwaat rond point bi ñu dajee ci kaw. ñoom na am na lu ñu wax na ko fàtte woon laaj dama lay jël fële ñu ne dama laa waroon na wax ni Balla Gaye su fekkee dafa perte combat am ak Bombardier nag. loolu mi suñu kanam yàlla suñu borom incha allah ci kattanam ji mbaaxam koy ñaan ñun te bëgg mooy daan bombardier buñ ko daanee ba pare dinañ xam ne buñ ko daanee wala buñ ko daanee ñun incha dañuy daan bombardier ci kàttanu yàlla incha allah. Zador kañ lay kañ lay sponsorisé ci yéen la des bu ñu defalee proposition rek ñu xool ko amul problème incha allah. man maa ne proposition wala bëgg. ku la neex yéen ñaar. kontaan naa ci yow. jaajëf. 1er janvier d'ici le 1er janvier Bombardier ngi nii Balla Gaye ngi nii